baax ci dikk gi ngeen dikk ndax nit ku ne ñaari bis bisu naqar ak bisu bànneex ku ci ñëw ci bis bi nag ci ñaari bis yooyu ameel nañ la bor waaye amee lootoonu dara loon war a jox kon dikk itteewe ñëw teew si fii ci màggal gi rek euh, euh, def ngeen leen war lépp lebal ngeen nu itam màggal gi nag euh, dañ ko bàyyi woon ñaari at yi yëpp ndax jàngoro ji amoon ba ren ñu di ko soog a jëlaat ci ndigalul sëriñ Muntaxa mu fi nekkal sëriñ Touba mi nga xam ne moom la sëriñ Basir mu fi nekkal sëriñ Ibra Faati tàggu ba mu jox ko ci ndigal ne ko mën nga koo def nit ñi namoon ko lool nag ak taalibe yi ba tax na barki démb ba tey bis bi ak seegul waaye barki démb ba tey dëkk bi dafa fees dell kenn amul foo jaar ndax mbooloo mi ah ñu di ci góorgóorlu bu baax nag ndax sëriñ bi moo demee noonu ndax. bis bi day bis bi sëñ Touba daje woon ak Thierno bi sëñ Touba jógee ci géej gi ba dikk ndar woolu Thierno mu daje moom ndar bis boobu nag lañ jàppoon di ko def màggal gi sëñ lu joxe woon ci ndigal nan nañ koy def ndax bis boobu bisu bànneex la ndax li sëñ Touba wuti woon am na ko li mu dénkoon Thierno dara yàquwu ci ci juróom-yaari at yi a tax ñu ne loolu nag bisu bànneex la moo waral bisu màggal gi ñu ñu jàpp ko ci nisu saabaan waaw ah, léegi nag li ci lépp ñu ngi koy def. ñu ngi sant yit gouvernement bi tànk-tànk yi dafa bari ak jamono ji waaye li ñu mën lépp ñu ngi koy def ñu ngi koy def ci courant bi def nañ ko ci ndox mi def nañ ko ci wàllu santé def nañ ko it ci li ñu mën lépp waaw euh, ba ci oto yi nga xam ni yii dañoo topp euh, kër yi di ko mànq loolu it indi nañ ci lu doy sëkk ba defal nañ ko dëkk bépp ndox mi it euh, coupure yi courant yi moo bari woon ba ndox mi xaw a manqué waaye benn forage paanut benn forage amul problème mbande yi it agsi nañu léegi ak euh, baas yi nga xam ne yi ñooy def ndox mi kon loola it yaakaar nañ ne bala noo àgg ci màggal gi lépp dana faju kon nag ñu ngi sant it président de la république ci ndigal li mu joxe woon ne na ngeen taxawu màggal ga ba doo dara bañ a manqué loolu la waxoon ministre yëpp kenn ku ci nekk sa wàll def nga ca la la war muy ministre hydraulique muy ministre santé muy euh, ministre information kon nag ndax communication bi moom doy na sëkk def nañ ko bu baax a baax a baax ministre poste yi lim ci mënoon lépp def na ko ndax dañ ko waxoon ne ko day am ñu nekk bitim réew di yónnee xaalis te bëgguñu ñu ñëw ñu ne xaalis bi dafa manqué balde bii bi balde def na ci la ko war lépp yónnee si na fi loo xam ne ku ñu yónnee mandat ak fu ñu la ko mën di yónnee rek boo demee jot ci xaalis bi loolu it ñu ngi ko ci sant moom mi directeur général bu poste di ci sant yi directeur bi nekk Louga ak euh, receveur bi nekk fii waaw euh, sécurité bi doy na sëkk ndax def nañu CRD euh, lañu laajoon ci sàndarma joxe nañu ko waaw barki dem ba tey it ñi ngi raafal ñi fi nekk ci jubadi yi yëpp nag commandant bi jàpp na leen moo capitaine bi démb la capitaine bi ñëw kon duñ man lu dul sant ministre force armée di sant capitaine bi di sant nag surtout commandant brigade bi ndax tàmbali woon na raafal bi te màggal gi ak siwul ba jàppoon na fi ay ñu jubadi ñoo xam ne yàmbaa la ñuy jaay ak di ko jaay di jaay sàngara ndax dëkk bi dafa rëy dëkk boo xam ne mën ngaa dox juróomi kilomètre ci biir dëkk bi mu ne sut bis bu set nga contrôlé ko waaye moom ba mu ñëweeg léegi mi ngi mi ngi raafal mi ngi jàpp itam nag rek kon nag noo ngi jottali ak euh, sunu cant ci moom bu baax a baax man mi yor dëkk bi ndax dara ump ma ci waaw marché hebdomadaire bi moom ba mu desee juróom-ñaari fan képp ba mu desee fukki fan képp la tàmbali moom amatul marché waaw ndax euh, ñii jënd euh, nag yi ñiy euh, tefonke yi ñiy jënd xar yi ñiy jënd bëy yi ñiy jënd ganaar yi ñëpp a ñëw waaw ah, commerce bi it mi ngi dox bu baax a baax a baax ceeb bi doy na sëkk waxoon nañ commerçant yi ne na ngeen fexe ba stocku ceeb yi bu mu manqué bu kenn dikk di jënd daal ñu ne la ceeb dafa jeex wala diwlin dafa jeex surtout nag diw gi loola it góorlu nañ ci bu baax ñoom Cheikh Lo Modou Lo ñoom ñooñu ñëpp ak Abdou Khoudous Lo góorgóorlu nañ bu baax a baax a baax ba stock yi doy na sëkk koo foo àgg soo bëggee jënd ñu jaay la te it prix normal lañ lay jaay ñoo ngi leen di sant ñoom itam bu baax a baax ci taxawaay boobu ñu taxaw waaw ah, doomi dëkk bi lañu taalibe yi dëkk bi lañu commerce indiwu leen fi woon seen i maam eh, dañoo nekkoon ak borom daaru ba seeni i baay juddu bañ juddu di def commerce kon ñoom ñu ngi leen di sant. maanaam mbay def na. programme Bàggale def na circulation bi ni muy doxee am na fooy duggee am na fooy génne oto yu ndaw yit kenn du leen téye oto bu ndaw bi agsi danga nga agsi ba ci biir dëkk bi ki nga xam ne nag mooy transport en commun bi it defal na leen foo xam ne fa la ñuy wàccee ki nga xam ne mooy camion yi nga xam ne dañoo yor marchandise defal na leen foo xam ne fa la ñuy jaaree bàgg ci magasin bi ñu nekk indi na fi effectif bu doy ci gendarmerie boo xam ne bii loolu lépp ñu ngi koy taxaw di taxaw it fas nañ yéene yi taxaw ci ñaari guddi guddi tey gi ak guddi suba gi ba nga xam ne def te ñaawteef yëpp fas nañ leen yéene jàpp waaw waxoon naa ko it ci rajo bi ne leen booye boo ngeen def ndànk yéen ñi nga xam ne yéen yi def lu ñaaw te xam ne ku dikk Daaru Muxti dañ la arrêté waaw danañ la jàpp te danañ la yóbbu ndax commis commandant bi fi nekk day jàmbaar lool te farlu ci lool te dëkk bi ñor ko waaw ba tax na waa bu ne bi ki jóge Touba am na fu muy gaare bu dee transport en commun bu dee oto bu ndaw moom dañ koo bàyyi mu dem ba fu mu jëm ci ci dëkk bi ki jógee Kébé ki jógee Ndar wala Nouakchott jaar Ndar jaar euh, Louga di Kébémer wuti si Daaru Musti kooku am na fu muy jaar ki jógee it Thiès jaar ngaay mexe dikk Cilmaxa dikk Pekes ba agsi Daaru Marnaan ba agsi Daaru Musti am na fu muy jaar ñoom ñëpp ubbil nañ leen waaye dëkk bi it ubbi nañu waay yëpp mbedd yi kenn du ci lal kenn du ci def dara ndax nit ñi dafa dafa bari oto yi dañoo bari moo tax ñu wutal jaaykat yi fu ñuy jaay bu ko defee nag oto yi mën a dugg si ci biir dëkk bi ndax kër kilifa yi dañoo soree kenn te kenn ku ne boo dikkee ci sëb sëriñ nga jëm looloo tax ba tax na nag def eh, effectif bi moom doy na sëkk ñu ngi sant ministre for san bi di sant capitaine bi ak commandant bi ak commandant brigade bi nekk fii ci Darou Mousty muy mbay naa ne daal fi mu nekk daal war nañu am soixante-dix pour cent wala soixante-quinze pour cent moo tax ma ne la bu nu àggee ci suba daal ragal naa ne danañu danañu lépp bu lépp mënta matit la ca des des na ko mën a ba euh, muñ des na ko mën a àggale kenn kon danga ko mën a àggale ci sa kër <laughs> loolu daal laa ci xam moom ndax xam naa ne jàmbaar lañ ci ndax ki nga xam ne kii mooy euh, ministre Forsari moom mën naa ne def na quatre-vingt-quinze pour cent ki nga xam ne mooy ministre de la santé it xam naa ne mën naa ne def na quatre-vingts pour cent waaw mu des hydraulique ak Sénélec Sénélec it toppoon nañu euh, defoon nañu augmentation boo xam ne bii toppoon nañ ko gas ko dañoo laajoon courant bi quartier yi nga xam ne dañoo périphérique nga xam ne courant àggu fa woon àggale nañ ko fa ah, ministre bi joxe nañ ndigal li ak directeur Sénélec muy bi tey joxe nañ ndigal li joxoon na ne nangam la indi fi ab équipe équipe boobu euh, ndawul chef du village baa ngi ci ndawul sous préfet ngi ci ndawul mairie baa ngi ci ñoo topp quartier yi gas nañ ko ba mu àgg samp nañ poto yi def nañ ci làmp yi lépp dana takk làmp yi lakkoon it mairie bi wut na équipe am wut opérateur boo xam ne bii moo koy changé li yëkkoon ci biir dëkk bi ak ci mbedd yi ba ñoom itam def nañ ci leen war lépp muy commune bi ak conseil municipal bi def nañ ci leen war lépp ñu ngi doon wër di yi lakk ñu di ko remplacer yi nga xam ne bant yi nga xam ne it dañoo daanoon di banti dénk yooyu it Senelec mu ngi koy remplacer fauteuil ciment xel daal suma xel daal dal na ci bu baax a baax a baax ci ne li war état bi moom def na ko ci xëy na euh, lépp mënee sut nag mu xëy sotti waaw lépp it mënee sut ndax dafa daje ay xew-xew yu bari ndax euh, oto yi ñëw ci daaka gi lañ jóge jubal si fii directement Darou Mousty muy oto yu ndox yi. safoor si li ñu leen di wax nañ daw ndànk te respecte gendarme yi te respecté yi nit ñi yor te bañ a jëkkante clients yi bañ a yàkkamtee wàccee ba dem kenn ku ne lii sa wërsëg sa borom wax na la ne nangam ngay am ci màggal gi bi màggal gi daan dikk bu màggal daaru ne dikkee bu la fa fekkee nangam ngay daw nangam nga ci am kon nag jarul yàkkamti bay yàq sa oto yàkkamti bay dajeeg beneen oto jarul yàkkamti bay def accident na ngeen daw ndànk euh, euh, respecté li leen gendarme yi di wax ak police yi respecté it clients yi ngeen yor la ma waxoon maa ngi koy fàttali yéen ñi dëkk Daaru Musti bu leen yokk paas yi waaw euh, bu leen yokk paas yi dama koy wax rek la sëñ Abdou Khoudous daan wax ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi féeteeg man ka laa sañ diggal digal kenn ku ko dégg nag te bëgg koo jariñoo mën nga ko fab waaye sëñu maa digal ñëpp ndax yàlla yéen yu ci ñëpp kon nag yéen safar si dëkk Daaru Musti maa ngi leen di fàttali na leen paas yi bu leen ko yokk moo xam taxe la moo xam sareet la moo xam transport en commun la nangeen ko yemale fa mu nekkoon nit ñi yël lañuy fekk si yéen waa dëkk bi waxoon naa leen na ngeen yaatal dëkk bi te bale néeg yi te lal te xam ne xéewal yi sans borom dana leen ko jox ci barkeb sëñ Ibra Faati loolu laa leen waxoon